إلي قاد الله يوم الجمعة ما لي من باخ خديم الجماعة ملكني الجامع يوم الجمعة ما لي وحد اختاره وجماعة ملكني الجامع يوم الجمعة ما لي وحد اختاره وجماعة عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوكي ني باي خيل نيغي لين دي نوي دي لين زياره دي جيتو نيو بيك زيار بي صاحب الفضيله ولا سلاسي محمد المنتخى di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi lool te ànd ak waaye di ko ñaanal mboolem njabootu Serigne Touba gi mbokk yi kon euh, gis ngeen ne tey ñi ngi fii ci jumaay Touba jumaay Xaadimal Moustapha ji nga xamante moo nekk fii ci Touba euh, biñ ñëwee ñu ak ñi nga xamante mooy daaira mu Xaadimatul Xidma ñu fas yéene waxtaane tey jile euh, bërëb bi nga xamante ne fi ngeen ñu gis ñu nekk fii ci bisub bi nga xamante ne moom mooy bisub njàngum alquran mi bisub njàngum xasida mi waaye bisub njàngum salaatu ala nabi waaye bisub njàngum zikrullah bi nga xamante ne Cheikh Mouhamadoul Mountakha yàlla fi yàgg lool te ànd ak woote na ko tey ji nag ñu ñëw fii nga xamante ne moom moo di jumaa ji Euh, bankhas yi nak dafa yaatu ba taxna tay tey ñëw ci bankhas bi nga xamanteni moy mooy infirmerie bi euh, ñu jakarlok sunu sëriñ sunu xarit sunu lepp sëriñ Abdoulaye Bousso Mamassa mom lañu taxawal ni ngir fasiyene waxtaan ak moom jëme ci walum infirmerie bi euh, solo si nga xamanteni amna ko kon sang bi dama lay baye rek nga nuyu ak mbokk yi ñu doog a ci laaj ak tontu assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi leen nuyu baax jiital ci nuyoo bi sëriñ touba Cheikh Mamadou muntaha diko ñaanal yàlla borom yagal ko fi lol di wëral ko di nuyu mboolem ko xamni ne ñu sétane wala nga ñuy diglu ci jumtukaay yi nga xamni mom ngeen jakar di leen dalal jàmm fii ci fajukaay bi nga xam ne mu nekk ci jumaay Tuubaa di infirmière bi te daayira Muxaddamatul Xidma taxawal ko fi. daayira Muxaddamatul Xidma ñoom yore liggéey jumaa ji yaakaar naa ne loolu moom nekk na liggéey eh, jëf joo xamante ñëpp xam nañ ko mais lan moo leen xalaat loo bërëb bu am solo bi nga xamante ne moom moo am ci biir jumaa ji surtout. waaw eh, Cheikh Moustapha ñu ngi leen nuyu baax nga xamal ne barab bi li tax ñu tànnoon ko yaakaar na 2017 eh, lañ toogoon ba yàgg ñu xalaat ne bu barabu na jumaa jumaay Tuubaa waxtu nekk mboolooyu bari di fi ñëw euh, ci jamonoy màggal ak lu mën di doon léeg dana xat-xat goo xam ne dana am ñoo xam ne duñ duñ duñ duñ mën a jékki-jékki dem ci fajukaay yi kon ñooñu war nañ leen a seet ñoo xam ne bu bu leen dara jalee irsan ci biir jumaa ji ñu mën leen a defar yu njëkk yi soog leen a génne Euh, surtout nag bu dee lu mel ne gis nga bisu tey bii ak lu mel ne màggal Tuubaa nga xam tey ku fi dara daal sax bu dutoon am na ci jumaa ji lay gën doon jafe-jafe génn la jumaa ji kon mboolaa mi daayira Moukhaddamatoul Khidma xalaatu loolu ci atum 2017 ba ñu egg ci 2018 ba 2019 sax ci la gën a laasawoo nag ñaari at yooyu yëpp màggal Tuubaa ak yooyu lañ fi daa faj waaye bi ñu demee ba ci eh, jàngoro ji fi xewoon Covid bi ci la ñu bari defe ne ci lañ ko ubbi sax fekk na ubbi nañ ko tàmmaloo nañ ko ñaari at njëkk loolu waaye Covid bi bi mu dikkee nag importance bi mu am ñi yëngu ci wàllu docteur yi ci OMS ci wàllu anam yu bokkul yëpp tax ñoom ñoo xalaat ne barab bi barab bu am solo la biñ ko xamee loolu tax ne daayira mu xadam doxin ma taxawal ko fi ngir képp ko am jafe-jafe ci biir jumaa danañ la defal mm, yu njëkk yi ànd ko district bi ak privé bi ak jaayante ak pharmacie yi yëpp nga xam ñoom ñëpp dañu leen lëkkale ba kenn ku ci nekk di ci jàpp ci wet ga nga ci mën a jàppe ndax ku ne xam nga ne jumaa ji moom day lu ne ku ne mm-hmm. kenn ku ci nekk am nañ la yéene juñ la yéene ci li fi am ci tuyaaba ba tax na dañuy fas yéene ubbi ko comme ni ngeen defee yéen ñii def ñëw rek jël ko loolu seen wàll la kenn ku ne wet ga nga mane di ci yëngutoo ñu jàpp ne gannaaw sëriñ bee waxoon ne képp ku di julit nga fas yéene di feeñ ci jumaay Tuubaa ngir tuyaaba ji mën a am. Eh, ku wax wàllum faju wax wàllum docteur ndax am da ngeen lëkkaloo ak docteur yi nekk biir tubaa wala état moo leen jox li nga ne moom ay docteur eh, spécial ngeen ngeen waaw noonu lañ ko defee dañ ko lëkkale ak bi nga xam ne docteur Ndeye Maguette ñu ngi koy nuyu bu baax ci taxawaayam bu rafet eh, waaye nag ci yaatal gi mu ko yaakaar yaatal tamit district bi ba ci ba ci privé bi ba ci association pharmacien yi. ñu gëm ni ñoom ñëpp nday màggat boot leen ñu bokk liggéey ci barab bi nga xam ne bari jafe na loo xam ne lu mel ni am na nga xam ne ñëpp cee bokk liggéey ñuy nosu liggéey bu doon benn loolu tax ñu di ko def bu ko defee nag buñ jógee ñun waa daayira bi luñ mën a pexe ba ay garab am fi eh, luñ mën a fexe ba jumtukaay yi war a am ci barab bi am fi ñun daayira mu xadexoon ñu ko def des ne ci wàllum faj nag ñu bàyyi ko ñi nga xam ne seen xam-xam ca la jëm ñu jëm ci ñun moyen yi nga xam ne moom moom lañ fa war a nekkee ak jumtukaay yi loolu lañ leen di jàppandalal waaye faj maag lañ ca a def ñoom ñoom ñi ko yor te seen xam ñoom lañ koy bàyyee ñàkkul ay dawaayir yoo xamante ne ñi ngi ñëw di visite si bi ndax am na ñoo xamante ne ñi ngi yëkkati seen alal di ko ci def wala yéen rek yéen ay xam naa loolu am na ñoo xam ne ñu ngi koy bëgg di waaj moo taxit ci wi dañ def occasion ci soñ ci ñooñu te xam ne barab bi ku ne xam na ne barab bu soxla woo ay garab la ci événement yu mel nii mi ngi bi ak yeneen yu mel nii yi fii xew ndax fi ñu doon ajjuma ju jot mm, district dafiy ñëw ngir ko am jafe-jafe ci biir jumaa ji doo am benn jafe-jafe ànd ak ambulance bi boo waree jël ñu yóbbu la nga xam tey fi ñu ko doon pala tey jii tey daaw tën si la ñëw bee weesu ne euh, kanina ñëwoon mm-hmm. noonu lañ koy def nga xam ne centre de santé yi bu ñëwut ajjuma ji ba léegi ñëw bu dee bismil nii nag ñoom ñëpp dañuy district bi dañuy renforcer ñoom ñëpp ñu àndoon ñoom ñëpp ñëw ci liggéey bi gis nga fi ci ñu taxaw nii bara bu góor ñi la wet gële am na bara bu jigéen ñi boo génnee am na baas bu ñu fa def boo xam ne dañoo jublu secours fii ngir bu fii demoon ba am jafe-jafe baas bu bokk ci fañ mi te loolu lépp euh, ci ko la ci ma euh, jumte xew-xew yi ñu jëm mm. muy màggal muy gàmm muy ajjuma yi ñi ngi taalal mbokk talib yépp képp ko da xamné am nga garab go xamné ne garabu instant la ñi du ko ci barab bi d'ailleurs mu xadama ma mi ngi lay talal loxo du fas yéene yow mu melni laaj yi di ci ëppoon solo jàll na xanaa laaj bu mujj bi rek mom moy bis bi nga xamante Cheikh Mamadou muntaha wote na muy jangum alquran qasida zikrullah ak salatu ala nabi ban yëg-yëg nga ci am en talib Serigne Touba yëg yegu Cheikh Mamadou muntaha bëgg ñu jariñu yëg yegu liñu ñu bi sant lepp suñu jariñ la ndax mon na def nam kay def baye waye bëgg ni ñu jariñu bëgg nit ñi dund suñu borom dund yonent bi sallallahu alayhi wasallam dund Serigne Touba loo tax Cheikh Mouhamadou Mountakha jóg loolu nag boo te jàll mel na daa jaar ci ñun rek jàll dafa war a am am njàngat ci noonu ñu xam ne ñu war di tudd yàlla lañ ñu xam ne ñu war di jàng alxuraan lañ ñu xam ne war di sikkar lañ ñu xam ñu war di jàng xasida lañ ñu xam ne ñu war di bernde lañ xam ne ñu war di bennoo lañ jëm ci luy taxaw liggéey Serigne Touba bi loolu noonu ñu ko defee woon ajjuma jël weesu ñu taxaw fi tax waaye faj fi mbooloo mu baree bari ajjuma ji tamit ñu teel a xëy siwaat ànd ak noonu yëg-yëg boobu laa yëg ne Cheikh Mouhamadou Mountakha bëgg ñu jariñoon la ndax wax na ko bëgg dem rek ñi nit ki mën da ñàkk nekk ci dara soo ni ku ci war a nekk da ci la wut a nekk kon ñun sant yàlla lañ war a ñu yàlla may kilifa goo xam ne waxtu nekk lem ñu tànnal day gën ci ñun te mënaluñ ko bopp te lépp sëriñ Tuubaa rek tax ak bëgg ñu kon loolu yëg-yëg boobu daal lañ ci am ni eh, ñun lay suñ njariñ njariñ nag lay ful la mooy saa bu doxee ba jóg rawat nag mu ndigal loo xam ne ki fi nekk Sëriñ Tuubaa moo ko jógee ku dib taalibe nga fas yéene lii bu ñëwee lu mu la mën yu yóbbaale ci yiw na ko yu la ndax kat yi raw na yi dem dem na yi jàll jàll kenn ku nekk lay jëf jëf bu jaaree loo fa def lu baax dana la ko yóbbaale dencal la ko te Sëriñ ku ko liggéeyal nga xam ne yomal xiyam tax nga liggéeyal ko bala ngaa yëg yomal xiyam dala tàmbalee taral ci adduna gi ba nga yëg ni Sëriñ Tuubaa taral na la kon nag nañu gën a ba delluwaat sëriñ bi dund sëriñ bi te boole sunu bopp nag ndax ci doolu yëpp ñu wax gis ni ñu ngi bëgg liggéey sëñ bi te lañ nekk nanguñ caa boole seen bopp rek rax nañ te leen lu sëriñ bi mhm. waaye lépp lu sëriñ bi jóg rek euh, doon kese sëñ bi euh, dana no ànd noo ko dana ci yomb mhm. damay faral di wax ne yaar yi lu xat du bàmba lu ñaadu du bàmba waaw lépp lu nit xatal rek rax nga ci mhm. lépp lu ñaaw rek rax nga ci mhm. wa salaam wa rahmatulahi taala wa barakatuhu sëñ Abdou Lahad Bousso Mama Sa moo ñu waxal waaye man sax dem naa ba dama xaw a mel ni xaw a kii parce que yow wax ji day mel ni ci xol la jógee te te bu jógee ci xol rek day dugg ci xol loolu daal mooy ñaan mu yàgg fi loolu tànd ak wér ñun njukkal li ñu ko mën a defal mooy ñaanal ko mu yàgg fi lool yàlla wane kiraamam ci dundam gi parce que comme ni nga waxee man yëg-yëg bi noonu laa am parce que dama jàpp ne suñu classe yi nga xamante eh, yàlla sax yàlla dogal na duñ ko am waaye mu may ñu bis yu mel nii ngir ñu mën si di taamu jàpp naa lu lu la ah, lan mooy kàddu tàggatoo yi waaw sant yàlla rek mm, ci fas yéeneen doone julit doone gor yu gore ndax ñun ñoo jaay suñu bopp Serigne Touba nit ki nag boo ko ne xam maa jëbb naa sa bopp àdduna ak adduna gi jeexagut te àlla tax laa jóg adduna gi war am looy jàmbat looy looy xeebat ndax moomuta sa bopp nañu gën a bàyyi xel suñu bopp te bàyyi xel dund sëriñ bi ku gis Cheikh Mouhamadul Mountakha ci as bi mu toll ci fu mu toll waaye dund diine lim ko jaral ci moyen yu mu ne ngir mu dund diineem ñun ñi nga xam ne am nañ kàttan war nañ ko war nañoo roy ci moom moomu ngir kàttan yi ñu am ñu jëm ak dund sëriñ Tuubaa dund sëñ tubaa nag mooy dund diine sëñ tubaa wuti wut ak diine ku ne dund sëñ tubaa ak liggéey sëñ tubaa mooy dund diine rek ndax lim fi woote lim fi samp lim fi doxal lépp diine rek la kon nag ñun ndaw ñi nañu gën a góorgóorluwaat sunu bopp taataan ci suñu njaboot ba xam ne lii këfe li yàqe bu ñu këf bu ñu yàqal loolu nag li ñu ko war a suuxal nit ñi ci sëriñ bi wan leen lu wanu xam ne am nañu royukaay yu mat a roy ndax lii am ci bàmba ji bu kenn defe ne ay pexe la bu kenn defe ne ay para ko may nit pas-pas moo ci may nit te bépp nit boo ci nekk di ci liggéey ba ci amee pas-pas jëriñu Sëñ Tuubaa Sëñ fekk ne bari na loo ne bu ñu la ci dee fay la fay sax fay di am mbégte ak kontaan baax a baax ci ñëw ci liggéey bu màgg bi nga xamante ne ah, Cheikh Mouhamadoul Mountakha jàmbaari Sëriñ Tuubaa ji daf koo amal ah, ngir soññ jaam yàlla yi ci jaamu yàlla Euh, muy ñaari bis yoo xamante ne ñaari ajjuma yoo xamante ne dañ koy wéyee ci sikkarullah ak li nga xamante ne moom mooy jàng alquran ak salaatu ala nabi ak xasida euh, ñu taxawee euh, jataay bu njëkk ba ci ajuma ji ñu génn tey ci ajuma ji tamit ñu daal di fas yéene waata ànd ñun ñëpp rek fas yéene ànd ci ndigal loolu le ndigal léegi yaatugum yaatu tax na ba tey ñu ñëw fii nga xamante ne mooy biir jumaay tubaa ci euh, ñi nga xamanteni ñoy wa daaira bi nga xamanteni ñom ñofi nek jité jiite njàngoom mi ñu jàkkaarloo ak nga xamanteni mom modi Serigne Khadim Mbacké ñu jox ko kaddu gi mu nuyo suñu nuyoo par ñu dogu dug ci laaj ak tontu yi. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk yi ñuy seetaan leen di nuyu te di leen ziyara bir ziyar bobu ñuy di jiital Cheikh mohammedul muntaha ñaan sun borom bi degeural ko ta ko. te yokk fan wi lool ba def ci sax mujiza naka noonu ñoom lañuy nuyoo it ak cheikh Mouhamadou Xabban Mbakke moom cheikh Mouhamadul Fadal di nuyu it mbokki taalibe yëpp sëriñ Amsatu Mbakke moom sëriñ Chouaib bi ñu ngi koy siyaara bu baax moom it. naka noonu it sunuy mbokki Baay Faal yi waa kër Cheikh Ibrahima Cheikh Ibrahima Fall ñoo ngi siyaara ñoom ñëpp rek di leen ndokkeel bu baax a baax di am mbégte bu baax ci. jëf ju tedd ji nga xamee ne sëriñ Mouhamadul Muntaxa ibnu Cheikh Mouhamadul Bachir ibnu Cheikhul Xadim baaxee nañu ko ndax tawféex rek la mooy xool li nga xam ne moom la sëriñ bi bëgg mu di ñu ci jéem a dugal di ñu ci jéem a di ñu jéem a nàmpatal loolu nag war na saa su nekk ñu di ko sant waaye it di sant bu baax it njabootuk Cheikhul Xadim gi yëpp rek ak ak ñun taalibe yi ñun ñëpp rek ñu ngi leen di sant di leen gërëm. di di di di ndokkeel bu baax ci bis bu tedd bii waaw. macha allah sëriñ Xaadim xanaa laaj bu njëkk bi rek moom mooy euh, yéen wàll wi nga xamante ne moom ngeen yore ci liggéey bi jëmee ci wàllum alxuraan ji naka ngeen préparé li xamante mooy bis bu màgg bi jëmee ci wàllum alxuraan ji. waaw ah, kay jërëjëf euh, moom comme ni nga ko xamee rek moom day loo xam ne ni ndigal la ndigal lu bàyyeekoo ci sëriñ bi te ñun moom dañu ay taalibe taalibe nag. Da bax ci mom thumma imtisali amrihi haythu warad lolo da bax ci talibi moy jeffe ndigal fum fi man di roté loolu da bokk ci yi nga xamné serigne bi da ko bolé won ci melokanu murid bu deugal melokan bo xamné murid bu bëgg deugal lolo da nga ca bolé won motax bi ndigal li ko ci cheikh mohammedul Mountakha ñew ci serigne khabban Mbàkke mum cheikh mohammedul Fadal mu jëm ci alquran ji comme nim ko séddalee rek comme ku melni ñom serigne yusuf mi nga xamé né mo jité isbu tarxiya bi ak wàll gépp rek kenn ku nek bay ci sa war bam mu euh serigne bi nak mm, serigne khaban moom Cheikh mahamoudou Fadal euh ndigal lay ndigaliko moom mom moom fum fi jugé rek mu daldi mu daldi wey jëm ci jëm ci jëm ci ndigal lolé xol num gëna baxé ñu défé ko bim ñëwé comme nan ko baxo défé rek wo nañ mbooleem ñi nga xamé né ño nek ci bir Touba ta ta ta ta ta ta bokku alxuraan gi ñu woo lu mel ne ki waa bi ci jiitalu sëriñ Bachiru Mbakke moom sëriñ Abibu ànd koog ñoom sëriñ Xaali Jaxate ak ku mel ne ki sëriñ euh, xaadimul Qur'an mi nga xamee ne moo nekk Daaru Salaam ak sëriñ Mbakke Jaxate mi nga xamee ne moo nekk fii ci daar ci ci ci ci daare kaamil gii nga xamee ne moom la sëriñ bi baaxoo woon di mu bokk ci yi nga xam ne ndigal la woon yoo xam ne sëriñ bi ko joxe woon ak eh, ñëpp rek ku melni serigne Ibrahima si ñum ñëpp lañ boole wo motax ñum ñoom ñëpp a wuyu si boo xoolee eh, yi nga xam fi lañuy jangé alcorane nit ñi dañoo fess a fess ba amuñ fuñ tok fi mu ne ne la fofu la yëfi toll bo dafa fess del lolu nak ñom it xam nañ mom yoonu mourid mom ndigal xaar eh, ndigal li fu mu fi man di ko it amuñ ci amuñ ci benn yiite amuñ ci benn dañu am dara bëgg-bëgg lu dul jëfe ndigal loolu biñ ñëwee tàmbali nañ ci jàmm comme niñ ko defee woon ajjuma gële jàll donte gii moo gën a nosu moo gën a moo gën a tawféexe ndax fexe nañ ba am ay organisation ci biir lépp euh, ci wàllum ña la ñuy jëfandikoo rek xeet yi demee noonu sëriñ bi nag ci biir liggéey bi mu am ñoo xam ne nii nag ñoom la wax ne ñoom ñoom ñooy nekk ak yooyu mu ñu tudd ci doomam sëriñ Abdou Fatah Mbacké ak sëriñ Jiiri Bousso euh, Asmaawo ak sëñ Xaadim jëmm ju xeebu ji di wax ak ñeneen ñoo xam ne ni ñoom la ñoom ñoom la wax ñu ànd ci liggéey bi ñooñu nag ñu ngi ci def seen kem kattan kenn ku nekk di ci di ci di ci góorgóorlu waaw. maanaam ci wàllum njàngum alxuraan mi ku ko wax wax ay limu kaamil ndax am euh, ci jataay bi jàll muy àjjuma jële jàll tënk ngeen ñaata kaamil leen jàng ak tey jii fi ñu toll nii ñaata kaamil ngeen amagum. alhamdulilah loolu laalo doon wax léegi ba jotaay bee jàll moom daa ne woon jotaay boo xam ne nii eh, jotaay yu bette la donte am murit kenn waru ko bett daa war saa su nekk daa war a pare waaye nag eh, ab jàngat la boo xam ne nii bañ ca bañ ca jugee eh, bi ñu laajee ñaata ngeen jàng ci ay kaamil mënuñ cee wax dara ci lañ jël nag ay matuwaay ren fi mu ne tey jii bu soobee yàlla mu njàng mi jeex danañ mën a wax ne temps la ndaxte jàngukaay bu nekk def nañ fa ay biga ki fooy yoo xam ne nii am na ñu fa nekk di ko saytu ngir maanaam lépp luñ jàng lu nekk ñu mën ko wax euh, yi sëriñ bi daan jàngalu bu njëkk yi daan nañ ko def waaye moom moom moom noonu la bee jàll moom dañ ne moom jëfi sëriñ bi nañ ko nañ ko jëf rek nañ ko jëf rek nañ ko nañ ko def rek ndaxte njort nañ ne àllarba la ñun ñun lañ jot ci ndigal li alxames a ci dox ajjuma gi daal di ñëw loolu moom moo tax waaye ren moom incha allahu rabbi wala tey jii moom bu soobee yàlla bu ñuy paree dinañ mën a wax ne temps lan jàng ci ci ci kaamila alquran. laaj bu mujj bi moom mooy en tant que taalibe Serigne Touba ndigal lii Cheikh Mouhamadul Mountakha joxe lan mooy yëg-yëg bi nga xamante ne am nga ko soxalew jëmee ci bis boobu. waaw li Serigne Touba wax rek ci alxuraan rek loolu mooy suñu yëg-yëg Serigne Touba dañoo digal ñun taalibe bu nekk muy góorgóorlu ci njàngum alxuraan. kullu muridin bi yaluudu fal tilaawatan li gayri dikrin xadru la wax nee na bépp murit bu nekk nanga nga góorgóorlu di jàng alxuraan saa su nekk waaye tamit alxuraan ji ñuy jàng it nit ñi fees giñ fiy fees ak suñu wootee liñ fiy jàng ci ay kaamil loolay day dellu ñu dëggal ci ne sëñ Tuubaa bu ne moom moom alxuraan gu ne loolu dëgg la ndaxte nee na malakanil xuraana tamliikan yadum awrasani kitaabullahi la wax awrasani donduloo na ma sun borom bi donduloo na ma téereb yàlla bi loolu moo tax ba lii moom tawféex la tawféex la joo xam ne nii dañ ko ci sëñ bi rek lañ ciy gis ndax ndax ndax dañuy xam ne tem cheikhul xadim alquran la ndaxte waxoon na ne kanzil kitaabu wal xadiisu wal adab laa jamao fiddatin wala jamao dahab nee na sama koom te dëgg mooy téereb yàlla bi téereb yàlla boobu nag moom la biñ ko wootee mbokk yi fu la ñuy bàyyeekoo fi ne boo xoolee ci euh, fii nga xam ne fi la ñuy jàngee alxuraan gis ni muy feesee dell mu dul jeex ñoo fi ñëw ñoo xam dañuy ñëw sa du na am fuñ toog waaw loolu nag mooy Cheikhul Khadim rek euh, jël jox ko yàlla euh, jël léppam jox ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu fayee rek loolu rek mooy mooy yëg-yëg bi nga xam ne dañ ciy dañ ciy am waaye tamit Cheikh Mouhamadul Mountakha dafa mel ne. daf ñuy dimbale ngir ñu sax ci jàng alxuraan daf ñuy dimbale ci ñu fexe ba li sëriñ bi bëgg ci ñun ñu di ko def sëñ Tuubaa dafa waxoon addim addim tilaawatal kitaabi waaw addim tilaawatal kitaabi walaw walaw bi thalaa walaw thalathatan min al azabi la wax na nga sax ci di jàng alxuraan bis bu set doonte ñetti doonte ñetti ñetti isib doonte ñetti isib loolu moo waral kon kenn ku nekk ci ñun war na ciy bàyyee xel bis bu set ab murit bu nekk war naa bàyyee xel bis bu set bala mu génn këram wala wala wala wala mu mu mu am jombate yi tëdd ci lal te du jàng alxuraanul karim loolu a murit bu nekk war na cee bàyyee xel baax a baax a baax rek lañ ci lañ ci lañ ciy gisee loolu rek mooy yëg-yëg bi nga xam ne war nañ cee bàyyee xel baax a baax a baax waaw waaw. nga jox la kàddu yi tàggatoo yi. waaw kay ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant muqaddamatul xidma bi nga xamee ne fii ci jumaa ji ñoom bi nu ñëwee seen taxawaay yu am solo yi nga xam ne taxawee nañ ko eh, ñun nag kenn lañ ci biir jaboot gi moom eh, ndax dañ caa bokk ca biir waaye teewul eh, taxawaay yu am solo yi nga xam ne def nañ ko ndax day day day daayira boo xam ne nii sëriñ Saliou Mbacké mu baax ma moo ko moo ko moo ko joxe woon ndigal te te te te ñoom li seen yiite dëgg-dëgg fexe ba mbokk yi képp ku bëgg a ñëw ci jumaa ji ñëw ci ñëwinu sel waaye tamit nag fexe ba jumaa ji di sell tey xeeñ lu neex Lolo nak, eh, motax sa su nek ñi di ci ni ñi ci doxé euh di di di and ko mbokk yu tedd yo xamni ni ay ay kilifa lañ fa lañ nek kon nak ñoñu ñi ngi leen di sant di ñaanal nak Cheikh mohammedul muntaha ñaan mu yag fi lol te and ko guer manam eh, li ñi ñaan moy aw dundam yal na nekk kimtaan ci ñëpp waaw ah, na dund dund dund bam sering kimtan kimtaan eh, sëriñ xabaanam Cheikh Mouhamadul Fadel ñu ñaanal ko yàlla sunu bi defal ko bu baax a baax Euh, ndax day liggéey liggéey bu rëy rëy ci alxuraan ba noppi di ko def ci defin woo xam ne nii maanaam ci secret la ndax ndax ndax baaxoo wut wax ju bari kon nag loolu ñu ngi ciy sant ñëpp di gërëm ñëpp daal euh, sëriñ am saak waa waa waa waa waa sunu mbokki Baay Faal yi ak it maanaam euh, waa ñom ñëpp ñi ngi leen di sant di leen gërëm assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ahmadu mughniyan taala an sina wa kana li bi kulli shahrin wa sana xaatabtuhu fi lbarri walbahri wa fi alsirri waljahri maa alhaadi alwafi فقلت يا رب الورى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا صل صلاة فائقة كل صلاة برئيس لائقة مع سلام لا يجاريه سلام على وسيلتي لك الماح الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب له اليوم بشارات الكريم لديك يا باقي مزيد لا يريم ak sëñ Abdou Lahad Koundoul moom moo jiite site site bi nga xam ne ci la jànkat yi rajas yi yàlla ñoo lay def ñoo lay fay baax te di la siyaare baax baax. ñëwoon fii doon def reportage bëgg a xam d'abord fii liggéey bi nag ngeen koy doxal. waaw ñoo ngi lay siyaare baax a baax di sant bu baax a baax ci teewaay bu am solo bii léggéey bi moom ni muy demee ni muy doxale yéen bi ngeen ñëwee buñ leen ko leeralee sax dañu ko xam ndax fii buñ xëyee ni ko sëriñ bi bëgg rek noonu lañ koy defee yàlla suñu borom dogal jànkati xas bi yooyu rajo si ñëpp buñ xëyee dañuy jawal si fii. ku jàng boo noppee jox sa moroom ñi jublu penku yor seeni jukki di durus di ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha mu yàgg fi ànd ku wér waaye bu ñu xëyee ni ko sëriñ bi bëggee lan ko fas yéene defee ba waxtu ñaan jot bu sëñ bi ñaanee ñu daal di yeweeku nga jànkati xasida yi suba ba léegi ku daaneel jox morom nii rek lay demee woon comme ni ñuy waxee sax am na ko noppi keneen di jël wax njàng mi dañ ko wutal ay waxtu wala dañ bàyyi comme ñax jàng comme nii ñu def nii dañoo jël xasida jaalibatu maraaxib seetlu ko lu mat fukki junni fukki fukki léegi jànkati xasida yi ku daaneel jox sa morom bu xasida jaar ba jeexee ñu jël lu mat taysiru xadir seddale ko bu taysir jël ma faatama bis seddale ko mooy tax jànkati xasida yi teew yëpp kenn ku ci nekk mën cee jël sa wàll mën a feeñ sa yéene ci bis bi maanaam daal kon bu déggee mooy nekkut ne ku nekk da ngay ñëw jàngale la soob am na fi dafa waxtu wi dafa xoj te dafa jege te diggante fi ak 18 heures fi nekk ci jànkar bu ñu ne ba 3 di du matin du jeex loo tax ñu programme ko noonu waaw. léegi bi ngeen dee jàng bu waxtu yu jotee di ngeen arrêté. fu ñu jàngee ba waxtu yu jot dañuy arrêté bu ñu jullee ba noppi ñu tàmbaliwaat noonu la ni ko sëriñ bi bëggee rek noonu lañ ko fas yéene def. 18h ngeen waaw bu sëriñ bi ñaanee rek bu sëriñ bi joxee ndigal ñu ñaan rek. ni ngeen organisé itam affaire berne beeg yooyu. waaw xéwal yi moom lépp ngi ñëw bi ñu xëyee gis nga gis nga jataay bi ndox yi kenn marut kenn xiifut yàlla suñu boom dogal na ci ba léegi xéewal yaa ngi baawaan xéewal yaa ngi saawaan bu añ jotee ñëpp danañ añ ba tuur yu tedd yaa ngi ñëw maanaam daal ta jotaay bi nag du du soppeeku boo ñëwee dañ ko organiser wut nañ ay organisateur ñu organiser ñu organiser jotaay bi ña nga fee bu xewul jotee danañ génne bagage yi ñëpp xewul ba noppi du am débordement ba noppi du yàq ci programme njàng mi dara noonu daal lañ koy def te liggéey bi nii dañ ko ànd ak sëriñ Xamsatu Mbàkke sëriñ Soxaybu ànd koog sëriñ Yuusu Jóob ànd koog waa ahlu xasaayit ñu ni ñu ni ñu ni ñu ni ñu ni servant yi bu baax a baax ñaari waxtu yi ni ñu ñëw xool ba xam ni mu jëm ni muy doxee bëgg nañ daal ni ñu ko yëkkate teg ko loxo ñu fas yéene ko doxee noonu ba ni ñu ko bëggee ñu amee ko noonu incha allah jërëjëf sëñ Abdoulaye jërëjëf sëñ Abdoulaye Koundoul la woon bi jiite site bi fii nga xam ne fi la ñu jàngee njàngum rajas mi ba tey ci reportage bi ñëw fii ci kër Cheikhoul Khadim résidence bokk na ci liggéey bu am solo bi nga xam ne ñu ngi koy def bu nit ñi nekkee di jàng xasida ñi di jàngal quran ñi itam ci liggéey bu am solo bi la ñu nekk mooy wàllu mbind mi ay xasaayid yu wuute wute kon xasida daañu ko bind fii lépp rek ngir firndee la ko liggéey bu am solo bu noppee itam boole ko dajale ko jëbe ko seexul euh, xadim sëriñ Muntaxa moom mi xete moo santaane liggéey bu am solo bi kon euh, site bi itam site bu am solo ñu waxtaan ak kon ki nga xam ne kon mooy responsable bi ngir mu leeral ñu dëgg-dëgg liggéey bi naka lañ koy amale ak itam ca cappaandaw ga fan lay mujj مغنيا تعالى عن سنه وكان لي بكل شهر وسنه خاطبته في البر والبحر وفي السر والجهر مع الهادي الوفي فقلت يا رب الورى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا صل صلاة فائقة كل صلاة برئيس لائقة مع سلام لا يجاريه سلام على وسيلتي لك الماح الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب له اليوم بشارات الكريم لديك يا باقي مزيد لا يريم يا ربنا صل صلاة بارعة مع سلام بالمنى مسارعه على الذي أعطيته مدادي مذ زمن مع صفا ودادي lépp lépp boole ko ci liggéey bu am solo bi nga xam sëñ moo ko santaane ñu nga sëriñ Moustapha Guèye xasida mi nga xam bokk na ci ñu yor liggéey bi fii sëñ Moustapha ñu ngi lay nuyu bu baax ok ñu ngi dolli siyaar bu baax sama sëriñ naka ñu ngi ñëw fi fekk leen ngeen di euh, bind ndax mën ngaa ñëwaat ci xasida yi ngeen bind naka ngeen koy doxalee ci tàmbali bi ba ci fin bi waaw xasida yi niñ koy doxee ginnaaw bi ñu ci amee ndigal yu bàyyi ko ci Cheikh mun Mountakha mu boole noog sunu jëwriñ ju ñuy wax sëñ Jili Mbàkke Koso euh, muy taxawu liggéey bi ci rafet gën gaa rafetik taxawin xasida yi nag dund eh, dund guleet ndax am mbooloo ma moo xamante si ni sëñ bi moo ko nos tuddee ko foo idi daal yi ni bindkati borom Tuubaa yi nga xam ne at mu jot saa yu nu wootee eh, njàng mi ak ak ak sikkar si eh, bindkat yi dañ ci ñëw ànd ci waaye at mu jot itam danay tànn ay xasida yoo xamante si nii moom lañ cay bind waaw noonu daal la demee waaw xasida yi ngeen di bind ndax mën nañoo xam ren ji yéen ngeen moom ngeen naa takk ndax fukki la ak ñeent euh, ci njëkk wasilatu bu boox jës bu mooy muxaddimaat euh, toxfatu yooyu daal lañ ciy bind ba mu toll ci fukki xasida ak ñeent yu yu yu takk. mu mel tamit ni ngeen ko programme ak daayira bi dangeen koy def mu nekk saaru continuité daal mooy sax euh, suñ bi santee rek fantaañi rek ngeen wéyal. continuité la ndax yemut sax ci lii rek. lu jëm ci am na ab liggéey bu mag bu ñuy xaar bu jëm ci université bi ak leneen ak yeneen ak yeneen ndax mbooloo la goo xamante ne mbooloo gu nosu la. goo xamante ne danoo danoo sëñ bi da leen di tuddee Fawaa'id Daarayni bind kot bu Borom Tuubaa waaw waaw noonu liggéey bi su ngeen ci paree yan étape lay jaaraat xanaa dina jaar ah kay am na fu ñu ko wërale mi ngi fee sax mi ngi fee ci kanam waaw nga xamante ne beneen commission la boo xam ne lépp ci lii la ëmb hmm. waaye ci njiital suñu jili mbakki mi waaw xasida yi nga xam ne moom la ne bindi moo moo nekk nii di astafirullah bihi la nooru daare ni mafatihal bishri jalibatul maraqib tey surul asir wa xaqan matlabul fawdayni wala xadd karam na bismil ilaa ik fi nii minanul baaxil xadim jës bu mooy bu ma xadimaat ak rab bi bu may sabab man am na fasilatu rubo mi neen am na ci boo xam itam uh, bu mag la moom muy nuru daare ni waaw waaye ci uh, taxawaayu jëwriñ bi comme ni ma la ko waxee saa rek hmm. mu di ci def liggéey bu am solo hmm. mooy day xool ñi nga xamante si nii comme que fii bari nanu mbooloo mi bari nanu hmm. ñu def ko ay pàcc pàcc nga xam ni kenn ku ne balaa ngaa ñëw li ngay bind xam nga ko da ngay ñëw teg lal sijaada yi lal teg bindukaay yi teg lépp nga xam ne képp ku ñëw rek fa nga toog fa ngay fekk la ngay bind ak yëpp nga xam ne da ngay bind a àggal liggéey bi lépp day noppi ñu daanaka ci des bëreetu ndax fi ne sori na lool ah. waaw sori na lool macha allah waxtu waxtu julli gi sax ci dugg déet waaw fi ne daanaka am naa yaakaar ci ni bala ñu julli lu bari dama léegi bi noppee dañ ko jébal sëñ bi tey wala daa am bis ko noppee nag hmm. day am geneen wéral gu muy laajaat ah. nga xam ne dañ ko daan def ca Euh, daara émission xis bu tarxee suñ ci jógee yóbbu ko ci sëñ am sa suñ ci jógee nag soo ko yóbbu ci sëñ Muntaxa ma laaj sëriñ sëñ bi sëñ koso sëñ jili Mbàkke ma sëñ koso moom jëriñ moom itam xanaa bu fekkee am na kàddu yu ñu ci doole sëñ jili ñu leen yu baax de sax ngi ñi ngi leen di kon bu baax waa daara Hizbut yëpp rek ñi ngi leen di ziar bu baax di ziar mboolem kuy seetaan seen jumtukaay bi ñaan suñu borom àggale ko fu kawe njort ngi lay sant yow itam di la ziar bu baax ci sa taxawaay liggéey bi ni ko sëñ bi waxee rek maanaam liggéey bindal sëñ Tuubaa xasaa itam yi la ci anam gu mucc ayib ñu am ci ay yéene ak ak ak ak jubluwaay yu rafet yi tam bëgg sax àgg ci di jàngale bind ak ni ñuy bindee xasida yi am na liggéey yu bari yoo xam ne jot nañ ko def ba sëñ bi diglee tàmbalee bi si xasida yi ba léegi am na ci boo xam téeméeri nuuru daareen lañ bind am na ci yoo xam ne mat wul Matlabul Fawzayni lañ bind bi jàll euh, ajjuma ji weesu it nii lañ ko dundale woon bind ay nooru daareen ak yeneen xasida yu bari ay lim bii nag ñu jël fukki xasida ak ñeent ak benn biñ ci dolli muy wasilatu rubuux boole ko ci yëpp dañoo tànn ay bindkat fawaa'idu daareen yi bindkat yi borom Tuubaa mbooloo la moo xam ne daa sosu képp ku ci bëgg a bokk yi ubbil nañ la bunt yi da ngay jënd carte membre bokk ci bokk ci mbooloo mi lay sarti mbooloo mi yëpp nga ciy dox day am ñuy bind am ñoo xam ne li ñu féete woo mooy topp jumtukaay yeeg lépp itam ci seen biir rek lay génnewaat li ñu ci jublu mooy liggéeyal Serigne Touba ci lii nga xam ne moo doon ab liggéeyam te mooy bind maanaam bind mi ndax moom day wax ne karaamati xattu yedd yi moo tax te naka jekk yi danaa am mbooloo moo xam ne ñoo daa féetewoo di ko bindal mooy li Serigne Moussa Ka naan boo féetewoo di ko bindal mu féetewoo di la dundal boo koy bindal di ko bayal muy sàkk ñuy bay di la jox moo tax day am naka jekk Serigne Touba nag lu mu xas ba sos loolu du man manees naa dem ba yàgg dee su dee su ko gis waaye sëriñ bi moo moo ca am ak nam mag yeesal kon day mel ne loolu moo dellusiwaat rek mbooloo moo xam ne la ci ëpp ñëpp ay ndaw lañ te kenn ku ne am yitte ju kawe maanaam koo ci gis rek day mel ni yitteem rek mën naa doxal mbooloo mi day mel ne nun dañ ñu ciy tudd ci kanam rek waaye ñëpp ñoo maanaam seen yitte mën naa doxal mbooloo nii mu amee ay góor itam noon la amee jigéen ñoo xam ne ña nga ca geneen wàllaaga am na ay soxna xam naa bu ngeen fa àggoon sax waaw waaw euh, sëñ sëñ Xadim Jaxate mais moo leen taxaw mu doon taxawaay bu rafet ñoom it boo fa àggee mbind mu mucc xëyib la ñu def naka noonu ci weeru safar yi daanañ ci taxawal kaamil boo xam ne benn bis lañ koy bind loolu lépp yi bi rek lañ ci jublu rek mooy dàkk mbégum sëriñ bi ak ngërëmam ak wane it may gi ko yàlla may may yoo xam ne su ko gis fa dul ci moom fi moom loolu loolu mooy jubluwaay bi jërëjëf euh, mbokk yi comme ni ngeen ko dégg noonu fii mooy daayira Fawri Daarayni wàllu mbind mek xasida yu ci aju ñoo ko yore fii liggéey bu am solo nak bu mag mag bo xamné dañ koy def boobaak léegi kon ñu wëyer reportage bi jërë ngeen jëf سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب له يا ربي في الإثنين فوق المنى والحاج من منين بغير آفة وغير كدر يا من كفاني كدرات القدر ba tey ci reportage bu am solo bi ñuy def fii ci kër Seexul Xadim ñoo ngi fii ci ba tey ci mbind mi yéen a fekk nañ ci liggéey bu am solo nii ñuy ci góor ñi itam noonu la ko jigéen ñi di ñoo ngi kenn ci ak ñi nga xam ne ñooy euh, bind jiite tam soxna yi fii ñu ne ko moo sànni ay cadre rek ngir leeral seen liggéey bu am solo salaamaaleykum soxna ñu leen waaleykum salaam wa rahmatullah ñu ngi baal ñu ngi wax ni sa tur te itam présenté yaay kan liggéey bu solo bi ngeen di def waaw tur bi soxna Amy Thiaw Xadim Mbaye la mel ne maa jiite mbooloo mi nga xam ne ñoo di Fawaaidou Daarayni bindikat yi borom Touba yi ci soxna yi nga xam ne ay bindikat lañ tey ñu teewoon ci journée xasida bi ci comme ni ñu koy amalee ci jàng alquran ak xasida ak sikar jigéen ñi tamit amoon ci wàllu ci bind li nga xam ne mooy xasida loo ko si bis bi tey nag doonul loo xam ne tey lañ ko njëkk a def ndax ci majmuat Fawaaidou Daarayni bi mu sosoo ba léegi ñi nga xam ne ñooy jëwriñu ci góor ñi xalaat nañ jigéen ñi tamit am nañu wàll ci bind mi moo tax ñu boole leen ci bind xasida bi ñuy door a tàmbali tamit nekkul woon ne ñun ñi kese la woon waaye ci li ñuy dem di dem rek ba nga xam ne am nañ benn groupe boo xam ne moo tudd majmuatu fawaaidud daarayni bindkat yi borom Tuubaa yi ci sax may ci lañ dem ba xam ñeneen ñoo xam ne ay jàngkat alquran lañ ay bindkat lañ chaque jour ñi leen ñuy xamante ñu bees di leen yokk ci majmua bi ngir mu gën a yaatu daal ci law euh, fii li ngeen di bind da ngeen ko jëlee ca mbind la ñuy bind fële wala yéen tamit da ngeen ber seen waaw mu mel ne e, soxna yi am na ci xasida yoo xam ne dañu leen koo defal xasa ngir ñoom xeekaar na bi ci nekk bokk na ci ak sindi di sindi di dañ ko disaare ci soxna yi donte bariwul lool waaye ku ci nekk dañu ci am ñaari fooy wala ñetti fooy ak toxfatul mutadarrain ak matlabu shifa ak jaawartu am na fi waqaan yi tamit am na fi ak ikfini yi mooy xasida yi nga xam ne soxna yi moom lañu bind ci bisu tey moom la ñuy bàkkee loolu daal mooy itam actuellement liggéey fu mu toll ndax sori ngeen li déedéet bi ñu tàmbalee léegi yàggul waaye daa mel ni yi ànd yi asalaamualeykum wa bokki jullit yi bokki taalibe yi noo ngi yëkkati sunu kàddu ci turu sëriñ Ousmane Mbàkke Gaynde Fatma mu teewal fi kilifa pénc mi di sëriñ Ahmadul Muxtaar ci ndigal cheikh mohammedul muntaka mi nek ci bop yoon wi seigne ousmane wax ni mi ngi len di jotali cadeau yu joge ci sëriñ ahmadul Mukhtar moy cadeau yi sante ak ngeureum ak ñaan ci taxaway ak yitte ji ngeen def ci ndigal li nga xamanteni ni cheikh mohammedul muntaka moko joxewal joxe xolam sedd bu baakha a yaakaaram itam gën naa feddaliku ci taxawaay yi nga xamante ne nii kuréel yi séq liggéey bi muy fédération Mafatihul Bichri ak fédération Safinatul Aman bu Kéré Mbaye ak fédération Majmahun Nurayni mu ñaari guddi Ndakaaru ak fédération des groupements religieux et culturels des disciples de Cheikh Ahmadou Bamba ñu gën leen a miin ci wilaya yi ci ñemente gi ngeen ñemente ci nangoo ànd dëggale ko waxi sëriñ bi ndax ku gis Cheikh Mouhamadul Mountakha ak ni muy doxe xam ne li ko ñor mooy taalibe yi ànd doon benn te loolu dëggal ñaanuk Sëriñ Tuubaa la yaa rabbi ij'alil muridina maa fi xisnikal xasini wa samla ijmaa sëriñ bi nee na mi ngi ñaan ci sunu borom ànd boobu yi yàlla na leen ci suñu borom defal lu kawe seen jot barakat Cheikhul Khadim di sant itam ci taxawaay yi ci nangoo jëfe ndigalul sëriñ bi nuy rafet njort bu baax a baax nag ni nun def na suñ jëfi jaam mooy ab jaam lim man lépp def nañ ko te ab jaam du wàcc yàlla des nuy rafet njort bu baax a baax ni li doon yéene Cheikh Mouhamadul taxaa moo ko xam waaye rafet na njort ni suñ borom dana ko ci defal lu kawe njortam ndax lim nu doon defloo mooy ñaan yàlla ci kaw sant ko ak di ko tudd yàlla nag dara waru ko waaye moo warlul ci boppam ni su ngeen ma dee tudd danaa leen fàttaliku tudd yàlla dara jiituwu ci alxuraan moo waxe itam ni su ngeen ma woo danaa leen wuyu adduuni astajib lakum moo waxit ni bu ngeen santee ma dolli leen te lii ñett yooyu rekk la doon firndeel ñu defe ko nag fii ci Touba defe ko fii ci daarul quddus li rabbil alamina mursulu ahmada sëñ Touba yi doo xam ne duaa uman bi yatawassala mujab li nuurihi lazi yusaxsihul hijab ni képp ku ñaan yàlla te def tawassul ci man suñ borom dana nangu ñaan nga liñ fi doon def lépp génnul suñ tuba kon sëñ bi nee na nu maase yeesalaat suñu pas-pas te gën a rafet njot te gën a feddiliwaat suñuy laxasaay te xam ni kii fi nekkal sëñ tuba bu amee ak bëggam noonu nu am sunu bëgg Cheikh Ibra Fall nag mos naa laaj sëñ yaaram mbay ni ko su ngeen amee bëgg nu ngeen koy faje sëñ yaaram ni ko suñ bëggee lu mel ni mbubb dañuy wut xaalis dem ca jabar xool ba gis tiisi bu nu neex ñu xotti ca meetar yu nu jot dem ca téer ba mu dogal na ko nu sol Cheikh Ibra Fall ni ko man wóote na ma ak yéen man bu ma amee bëgg damay bàyyi ba sëñ ba bëgg ma dugal sama bëgg ci biiru bëggam bu sëñ Bamba amee li mu bëgg ma am sama bëgg noonu sunu bëgg dugal nañ ko ci biir bëggu Cheikh Mouhamadou Mountakha xamuñu lu mu ci jublu waaye lu mu ci jublu rek arrangé nañu ndax wóor nañu ni jaam ñi moom yàlla mi leen bind rek moo ko ci ëpp yërmande waaye ku yàlla ëppoo ko yërmande ci jaam ñi te wóor nañu itam ni Mouhamadul Mountakha ibnu Cheikhil Basir ma ngeen xamoon doonu ko Sëñ Tuubaa fi ne ndaa amul ndox ndoxum teen la yor ndaa amul ndox ndoxum teen la yor loolu ñi dégg danañ xam li may sun borom nak sëriñ bi nak da waxoon ni wasrif bi jahil muntaqa lil umma ighasatan takfil adha wal khumma ñuy ñaan ci dara darajey turandoom woowee di seydina muhammad sallallahu alaihi wasallam ak ki ñu ko tudde tem nek fi nekkal fi sëñ tuba sun borom faj ñu aju ñun ñep lolu nang koy ñaan te sëñ tuba itam ñaanon na sun borom ni ko wahab li an nusra fi kulli al bilad jumlatiha yaa xaaliqal asmani wal bilad ni sun borom maa ngi lay ñaan nga ñaay nga ñaay ci mbollem rew yi nak ni bayu wut ben ben rew te ngañaalul seigne touba moy l'islam ne ci kaw rek hiya al ulya ne ci kaw lol dong moy ngañaalul seigne touba te seigne bi ñaanon nak sun borom te sun borom mom lepp te wasaaxali kullama ahwa bila talabin sawqan bihi yastabinul jud wal karam ni lepp lo xamante ni sama xel dem na ci sun borom may na mako lat mako ñaan kon seimbina bi neena mi ngi len di sante ci taxaway di len di ñaan sun borom kii fi nekkal suñ Tuubaa yal na nu suñ borom wan kii maa nu gudd fan ak mboolem bokk yi mu bokkal sëriñ bi di ñaanal itam taalibe yi ak wér ak tal ak fekke ak wërsëg wu yaatu wun mën a liggéeyal suñ Tuubaa barke bis bi ak li taxoon borom santaane ko ak penc mi ñu ko doon defee ak borom penc mi sëñ bi sant na gërëm na ñu ngi toog nag di dégluwaat ndigal te waaj wàccaay wu jekk bàyyi sunu xel ci ni ndigal rek la ñuy dunde sëñ bay faaloo nag da daan wax ni baara njinne bu goree ku ko ni yana ngi dalaa war a neexal baara njinne su fekkee gore na ku ko ni ab yana ngi dalaa war a neexal mbax moom ci ab yan lay dund ab taalibe itam ci ndigal képp lay dund noonu bu sëñ bi joxewul ndigal ñoo waroon a cotiser suñu xaalis neexale ko ngir jot ci moom ndigal ndax lépp lu mu wax yàlla rek a tax te waxal na ko boppam ni ku bëgg a baax xoolal ci man te ni du ngeen gis dara lu may sëñ Tuubaa rek ngeen di gis ni ku bëggut a baax nag yaa xam kon nan góor góorgóorlu bu baax a baax te xam ni am nañ kilifa gu mat kilifa te nangu na jabootee kon li ci des doxa ci des kon liñ ciy tëje mooy nañ jël sëñ Bay Fallou Ndiaye la mu waxoon mag ña dañoo toog di waxtaan njàmbaaru Cheikh Ibra Fall sëñ Bay Fallou la mu duggee ca wax ja dañ leen course boo fekkiwut mënoo caa jël pee ñu ni waaw mu ni waaye course bii Babacar fekke bëggu ci deuxième sëñ mu taxa li mu ni defloo mooy la xewoon ca yoon wa démb mag ñi andon ak lirik sing li rek la leen sëñ bi doon defal musuñoo am jot birak am temps xamunu guddi na xamunu naaj na sëriñ bi rek lañuy deglu lu mu bëgg ñoga ci fofu rek lañu jaarale parce que degg na yoon wi xam ko dund na jaamu bi yalla la bu nangu am jaam ab julit la bu rafetal ak julitam talib bi la bu ko gëm ta ko ku yene ñepp la wassalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jere gene jëf ñepp mën sering talal loxo bi ñaan ah! شاهد له لا إله إلا لا ngeen jëf comme ni ngeen ko gisee rek ñoo ngi ba léegi rek ci ajjumay Touba fii ci penkub jumaa ji ci turu yàlla wu am solo wi nga xam ne njabootu maam si Ibrahima Fall Babul Mouridina ñi ngi koy taxawu euh, ñu toog ak sëriñ bi sëñ Fallou di ko ñaanal baax suñ borom dool dolli ko yàggal lool te wéral ko ak mboolem ay rakkam ak mboolem njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall gépp euh, si Moussa comme kaddu yi ni ñu ko doon euh, baaxoo di ko sàkkoo rek mel na ne ñu ngi ci euh, mujjantal bi waaye it Baye Fall moom ndigal moom saa yu jugee rek jug na kon ñi ngi toog rek di xaaraat ndigal waaye sëriñ bi kaddu yi soññe yi mbokki taalibe dañ koy yittewoo lool rawatina bis yi ñu jëm muy tabaski yi ak lu jëm ci wàllum ndigal yi nga xam ne mu ngi suñ kanam te sëñ mu ngeen daan wax naan ndigal lu mujj rek gën a am doole loolu moo taxoon tey rek ñu ñëwaat ngir sàkkuwaat kaddu yi Eh, serigne bi di la siyaar eh, baax nag Fallou Fall jërëjëf dama maa yéene kàddu yi ni kaddu yu kaddu kàddu kaddu ngeureum kaddu yo ngërëm ma nga bay ko ci sëñ bi Fall mu sëñ Modou Bende jóore di maam Cheikh bi mu jógee ci sëñ Mountakha mbak khadim rasoul mu ngi nuyu mbur yeb di leen sant di ngeureum di ndigal limu joxon joxoon te ngeen jàpp ko waye ndigal nak mom lu nu lu ko yar la leer te ki wut du wutee du wut du wute te kaay la mooy jëmu kaay la jël la suñ bu nu wooyee dina jox rek waaye doye wun ab coono doye wun ay fitna ndimbal ndimbal lay doyee ndimbal nag sëñ bi yéene na ko ñëpp ku ñëpp di mën jëmandiku waaye lu ñu jaayal nag lu ñu jaay nañ jënd yaa ko moom waaye dégg moom baax na waaye amul njëriñ jëf gi jëf gi am njëriñ jëf ji kon nag nañ dégg ndigal ko jëfee sëñ bi nee nag ndigal nag lu mu jàpp doole te bii raamit moom moom mujj bu njëkk bee kon nag na ko jëfee ñu ko bëggee rek ba mu jeex tàkk bu li jàllee nag man du jëkkay déglu ndigal ndigal nag mooy tabaski yi ni jëm ñu ko waajal baax a baax a baax kenn ku ne daal nu fexe ba am xarum baax bu dee menn bu dee ñaar bu dee fukk nu moo doon daal ndax rafet ñu teel koo indi te waajal addu yi itam ndax mooy mooy mooy jëm ci kësañ duwaa waajal magal gi magal gi itam borom di ngeen la waxoon mu ngeen mu sant yàlla sama borom yàlla nag ko tàmbali ci ginaar ba ci gëléem bu ci kenn naw xeeb dara bu kenn naw dara lépp na ko indi si ma Matar Mbàkke mu baax ma nag yàlla ko sama borom dolli ngërëm neew na kat li sëñ digle bari na ñoo xam ne mën nañ ko ñaareen bu ñetti yoon waaw koo xam ne mën ko ñaar ba ñetti nag benn du la jaaxal ganaar ba ci gëléem lu waaye mën na ko def waaye bu kenn ñëwee loxo kese loxo loxo kese moom di su ko xeexee bu xeexee dafa yor ngànnaay suñu suñu ngànnaay nag mooy jëfe ndigal rek ñëpp di gërëm ñëpp te li nga xam ne nañu déglu nañu déglu yu baax nañu déglu ndigal yi di jàpp ko di ko fonk te wuyu si waaye dégg ndigal te demoo ko day da nga mën a ku demul da yaakaar ngaa ñàkk kon na ne wuyu kuy wut di wuute suñ baa ñaan sama borom guddal fa numéro yëpp ak julli yi dafa leen jàmm ak xewlu yaatu musal la ci ndog yëpp te liggéey bi sama borom nangul na ko di ñaan sëñ Muntaxa Mbàkke mu yàgg lool te wér dañu war sëñ Tuubaa yëpp ñaan seen Fall mu seen Modou benn yàgg fi loolu te wér ak mboolem njabootu ko jëfee fekk moom seen Fall jërëjëf jërëjëf aouzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani euh, ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar waaye di leen béggee lool euh, di am mbégte lool ci euh, sawara tontu ci laaj gi nga xam ne Euh, da ngeen ñu koy laaj ci bis bii di bis boo xam ne moom la ñuy wax aljuma yi Touba waaye bis la boo xam ne Serigne Touba Cheikh Mahamadou Mountakha ñu ngi koy ñaanal suñu borom dolli ko kattan may ko wér mu yàgg fi lool te ànd ak ba liggéey Serigne Touba bi mu àggale ko waaye di ko ñaanal njabootu Serigne gépp rawatina ki fi toogal maam Ibrahima Fall muy Serigne Modou am sëñ Modou Mbenda sëñ Modou Amdi sëñ Serigne Modou Amdi Mbenda di ko ñaanal suñu borom dolli ko kattan euh, liggéey bi nag day liggéey boo xam ne. liggéey bu am solo la liggéey boo xam ne aljumay tubaa aljumay tubaa nag dafa am lu mu wundu te rëy lool ndax ki ko xalaat euh, te euh, bëggee xettali jaam ñi te bëgg ñoo dimbali te bëgg li nga xam ne moo nekk ci suñu jëmm yi ak suñu xol ci lu ci lu tilim euh, ak lu ak lu bon mu dind ko ci ñun ba mu set wicc loolu rek moom moo ko waral bis la boo xam ne boo xoolee li muy bari bari bari nit li ci ëpp lépp ay ndaw lañ ndax ay mag yoo xoole ñun néew lañ ci ndax jamono yi tàng na métti na waaye nit ñi dafa mel ni maanaam bu sëriñ bi boo ko defoo aljuma ji jot tamit maanaam jàpp naa ne maanaam mbooloo mi ci lay gën a bare maanaam ci la ñuy gën a dëggoo ci lañ gën a pasan kon dangay ngay xam ne ñoom seen tolluwaay ci sëriñ bi fañ nekkoon ba léegi foofu rek lañ nekk waaye nag ñu nekk fii ñun féete fi ci kër sëñ Tuubaa gi suñu jëwriñ jii toog di sëriñ Cheikh Mbacke moom sëñ Abdou Latif kenn ku xam ne mu yor ci liggéey bu am solo liggéey bu rëy lool te yaatu lool Euh, mu nekkal fi sëriñ bi ndax bi nga xam mi ngi xëyee euh, ubbee ci baatub laa ilaha illallah euh, bu 8 heures jotee ba 10 muy suñ mbokk Baay Faal yi ba 10 jotee ba une ci la téere bi yàlla bi di alquraanu karim ak xasida suñ Tuubaa yi di karaamay sëriñ bi mu ñu ñu daal di koy wëyal kon ba nii may wax ak yow tàkkusaan des na ndax bu juróom benn waxtu ci lañ war a ñaan mu nekk bis boo xam bis bu yéeme la euh, sëriñ Cheikh boobu léegi sëriñ bi joxoon ko ndigal mu ànd ak mbokk taalibe yi moo xam suñ mbokk Baay Faal la waa Hizbut Tarqiyyah waa Wilaya bépp kuréel boo xam ne rek yaa ngi ci biir dëkk bi di Touba sëriñ Cheikh dem na fa waxtaan ak yow ci bis bi ni ko sëriñ bi bëggee ak nan lañ ko xalaatee ba lépp jaar jakk jaar yoon te gëm nañ ne lépp jaar na ci yoon tax jag na ndax bëgg-bëgg sëriñ bi boo ko taalibe sëriñ Tuubaa yëpp déggee rek jàpp naa lépp dana mat moo tax sëriñ bi sëriñ Cheikh bi mu xëyee ba léegi mi ngi féete fii ci kër gu mag gi ci kër sëñ Touba gannaaw bi nga xam ne liggéey bi tàmbali na mbokk taali bi nga xam ne dañoo yoroon ay xéewal togg ko sëriñ bi joxal leen digal na ñëw ci sëriñ Cheikh jox ko fépp foo xam ne nit ma nga fa ak kuréel ma nga fa te sëriñ Cheikh xam ko rek maanaam fexe nañ ba la fa war a dem lépp dem fa xam naa sax ñun dañuy xaw a gàttal bàyyi sëriñ Cheikh rek mu sànni ci ñaari kàddu ngir soññ mbokk taaliba yëpp li nga xam ne moom la ci sëriñ bi jublu ngir aljumay Touba ji ngir ñun ñu mën koo xam te dégg ko te fassiyene ko koo mom moom mën nañoo wax ne bu serigne bu ko serigne bi yamalon fay tay ji ñun talibi serigne Tuubaa war nañu juk ngir wéyal liggéey bobé ba ba ëllëg incha allah rabbi bisimilah sëriñ bi. tabarkàlla jërëjëf wa rahmatulah li nga wax sëñ Mamoor daanaka mën na si jotee daal ndax may may may wax ji rek bis bi sëñ moo xaalis boppam digle ko ci al ajuma jeen weesu ñëpp defe ko defee mu aw ci ayib waaw yoon. àgg ci ànd ko yéen ak Pastef ba defee ko ñu ko sëñ bi bi ñuy soññewaat tam dañoo wax ne sëñ bi dafa bëgg suñu yitte jëpp di sëriñ bi ñun ñëpp ñu yittewoo baax moom la ñu sëñ bi bëggal yéene ko ma tax mu woote ko kon nag na ñëpp takku fabu kenn ku ne def ci la nga mën ba def loo te xam ne ñaari yiw yëpp ci lay dellusiwaat bi ñu ko defee itam nañ ko woote woon wuyu wuyu nañ ko nii ñëpp ñëw nañ yëf yi yéemaan na lool kawe war na njort lool xol si bi xolam sedd na ndax li mu bëggoon am na ko li mu bëggoon nag weesuwul taalib bi yëpp takku taalib bi yëpp yëngu ci sëriñ bi ndax ñu jariñu rek jariñu taalib bi rek la bëgg te de dama ko bëggoon defee nañ ko ni lam leen yéene yi xam ne nañ ci jot kon nag dañuy sant rek taalib bi yëpp ñaan sëñ Muntaxa ñaan yàgg bi te wér ndax sëñ Muntaxa li muy ñaanal taalib yi mooy aju fa ngërëmul sëñ bi te buñ bëgg ànd ànd nañ def li mu bu leen sëñ bi gërëmee yàlla gërëm leen kon sant yàlla rek mu ci des te ñaan ko nag ñaanal sëñ mu ndaxaa nag mu yàgg fi te wér na fi yàgg te wér na fi yàgg te wér ba li mu yéene taalibe yi ñu am ko ndax ñaari ñu taalibe yi rek la bëgg jërë ngeen jëf yéen itam ñu ngi leen di sant bu baax yéen yi jottali yëpp ñi ñi jottali ñëpp ñu ngi leen di sant ndax ñëpp mas nañ bis bi di seen yite daal ku ne kenn ku ne jàppe nga yéen ki nga mën ba asalaamualeykum wa rahmatullah noo ngi dellu si di teewlooti war noo weesu wenn waxtu woo xam ne dañuy teewlooti teewlu gu demee nii nii fa tabaarakallaahu sant bu baax a baax a baax a baax sëñ bi nee na noo ngi sant bu baax a baax a baax a baax kilifa yu tedd yii kilifa yu tedd yii ñu leen di tudd di tudd sëriñ bi bi di leen sant sant gërëm bu baax a baax a baax di leen sante suñu borom di leen sante sëriñ bi di leen sante suñu borom di leen sante sëriñ bi di sant ñoom seen bopp sant ngërëm lu rëy di leen sant ñoom ci seen bopp it sant ngërëm lu ree rëy rëy lii dëgg la am nañ ci yéene am nañ ci pasteef nee na lii dëgg la am nañ ci yéene am nañ ci pasteef eh, alhamdulilah rabbil alamin dañ koo fekk ci ñoom waaye alhamdulilahi rabbil alamin dañ koo fekk ci ñoom nu àndandoo ko nu àndandoo ko ba jataay bii mën a am dal na xel bu baax a baax loolu fa tabaarakallahu dal na xel bu baax a baax a baax. sëriñ bi kenn mënu ko jox ak xam. bi kenn mënu koo jox ak xam. ku seet diggam ak boromam diggam ak yonent bi. ku seet digganteem ak boromam ak digganteem ak yonent bi. xam ne kenn mënu ko jox ak xam. di nga xam ne kenn mënu ko jox ak xam. waaye lu lu ko tële tële tële nag. waaye lu ko tële tële nag. war nañoo jéem. waaye war nañoo jéem. ndax jataay bu mel nii. ndax jataay bu mel nii. ndaje mu mel nii. ndaje mu mel nii. teewlu gu demee nii. teewlu demee nii. danoo war ci sëñ bi. danoo war ci sëriñ bi. ci waxtu bu nekk. ci waxtu bu nekk. dëgg la àdduna bari nay gàllankoor. dëgg la àdduna bari nay gàllankoor. bari nay gàllankoor lool. bari nay gàllankoor lool. waaye nu fab sunuy waxtu yëpp. waaye nu fab sunuy waxtu yëpp. Eh, jox ko sëriñ bi. jox ko sëriñ bi. di ko di ko di ko di ko sant. di ko sant. cant gu amul ab. cant gu amul ab. sant gu digg. diggam ak boromam. sant ko diggam ak boromam. sant ko diggam ak yonent bi. sant ko diggam ak yonent bi. sant ko ci bopp diggam ak boppam. sant ko ci diggam ak boppam. sant ko it suñu diggante suñu diggante ak moom. sant ko it suñu diggante ak moom. yooyu cant neexut a boole. yooyu cant neexut a boole. te it moo nu war itam nag. te it moo nu war itam nag. kon nañu sant yàlla bu baax a baax. mu ne nan sant yàlla bu baax a baax a baax. ba nu ba nu suñu borom booleeg sëriñ bi. ba nu suñu borom booleeg sëriñ bi. xeeraat nu ci moom. xiiraat ñu ci moom. ba bëgg ko. ba nu bëgg ko. yemale wuñ koog dara. yemale wuñ koog dara. gëm ko it. gëm ko yit suñ digganteeg suñu borom. suñu digganteek suñu borom. mu doy nu sëkk. mu doy nu sëkk. biir ak biti. biir ak biti. tey ak ëllëg. tey ak ëllëg. kon sant rek nu war. kon sant rek moo nu war. te jé di ko jéem a nag sant. te di ko jéem a nag sant. jéem sant gi weesuwul. jéem a sant gi weesuwul. dellu ci moom rek. dellu ci moom rek. nekk nekkal ci rek nekkal ci rek ci li mu bëgg. nekkal ko rek ci li mu bëgg. moom boromam rek la bëgg. moom boromam rek la bëgg. yonent ko digal. bëggul leneen. bëggul leneen. ci loolu rek la nekkoon. ci loolu rek la nekkoon. bañ ko xamee. bañ ko xamee. di ko gis. di ko gis. ba biñ ko noppee gis. ba biñ ko noppee gis. kon nag alhamdulilah rabbil alamin. kon nag alhamdulilah rabbil alamin. Mbacke ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax. nee na Mbacke ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax. lii ma wax. lii ma wax. ci sant gu nu war a sax ci sant ko. ci sant gu ci sax gu nu war a sax ci sant ko. dama ko wax rek. nee na daf koo wax rek. waaye noo ko bokk. waaye moog yéen a ko bokk. xam naa ne moo nekk ci yéen. te moom xam na ne moo nekk ci yéen. sëriñ bi rek sëriñ bi rek a nekk ci yéen. sëriñ bi rek a nekk ci yéen. loolu nañ sant yàlla bu baax. loolu nañ sant yàlla bu baax. te jëmee ko kanam rek. te jëmee ko kanam rek. suñu yitte jëpp. suñu yitte jépp delloo sëriñ bi. nañ ko delloo sëriñ bi. bu nu ko defee. bu ñu ko defee. dana nopp lu teeg ëllëg. dinañ nopp lu teeg ëllëg. dinañ texe teeg ëllëg. dinañ texe teeg ëllëg. mucc teeg ëllëg. dinañ mucc teeg ëllëg. dinañ defaru teeg ëllëg. dinañ defaru teeg ëllëg. yëngu yëngu baa ngoog. kon mu ngoog yëngu baa ngoog. lii. nee na lii. dañuy jéem rek baaxantal rek. nee dañuy jéem rek baaxantal rek. waaye dañ ko waroon a def wird. waaye dañ ko waroon a def wird. ndaje mi yëpp. ndaje mii yëpp. dañ ko waroon def muy muy benn wird benn wird. dañ ko waroon def muy wenn wird. boo xam ne dañuy am pastéefu. boo xam ne dañuy am pastéefu. bés bu set du def ko. bés bu set def ko. loolu mooy sunu moo doon moo doon moo yey ci sëriñ bi. loolu moo yey ci sëriñ bi. kon nag ginnaaw mënul loolu itam nag. kon ginnaaw mënunu loolu itam nag. nañ bàyyi xel lu mel nii bu baax a baax. nañ bàyyi xel lu mel nii bu baax a baax a baax. delloo ko sunu lépp. delloo ko sunu lépp. delloo ko lépp. delloo ko lépp. di ko yëngul. di ko yëngul. di ko yëngul ci su su suñu lépp. di ko yëngul ci suñu lépp. defal defal defal defal ko ko defal ko ko addiya. defal ko ko addiya. baaxantal ko ak sunu cant ak moom. baaxantal ko ak sunu cant ak moom. kon nag Mbacke jërë ngeen jëf. kon nag Mbacke jërë ngeen jëf. di sant bu baax. sëñ bi nee na mi ngi leen di sant bu baax. ak bokki taalibe yi. ak bokki taalibe yi. yéen bokk lii bu baax a baax. yi nu bokkal lii bu baax a baax. taxawaay bi ak jataay bi. taxawaay bi ak jataay bi. di gërëm sant di gërëm bu baax a baax. di leen sant di gërëm bu baax a baax a baax. waaw kon nee na mu ngoog rek. di sant suñu kilifa yi nga xam ne moom ñoo ñoom lañ fi nekkal. di sant suñu kilifa yi nga xam ne ñoom lañ fi nekkal. ñooñu ñooñu ñooñu tàggat. ñooñu tàggat. ñooñu tàggat ci sëriñ bi. tàggat ñu ci sëriñ bi. wan ñu sëriñ bi. wan ñu sëriñ bi. soññu ci sëriñ bi. soññu ci sëriñ bi. kon ñooñu ñu leen di sant bu baax a baax. kon ñooñu ñu ngi leen di sant bu baax a baax. di leen gërëm bu baax a baax. di leen gërëm bu baax a baax. di leen di leen di leen wan ne noo ngi seen noo ngi seen i tànk. di leen wan ne noo ngi ci seen i tànk. sunu kéem kattan. sunu kéem kattan. jërë ngeen jëf. jërë ngeen jëf. xamuñu na xamuñu lu ñuy wax. nee na xolam dafa sedd guy. yaakaaram dolliku lool. yaakaaram dolliku lool. xel a dal lool. xelam gën a dal lool. jërë ngeen jëf Mbàkke. jërë ngeen jëf Mbàkke. jërë ngeen jëf mbokki taalibe yëpp di sant leen gërëm na ñëpp tàllal <laughs> na ñëpp tàllal yegg ak yegg la rek. nee na yegg sëñ sëñ Fall sëñ Fall moom sëñ euh, sëñ Moutala nee na ko yegg ak yeggal yeggale rek Mbacke waaw ñëpp nangu ñaan. amiin amiin <laughs> jëf mbokk yi ñu teelu fii ci uh, Touba Mbacke ci dëkk bu sell bi ci aljumay uh, Touba di bis yi nga xam ne Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacke moom Serigne Bassirou di xalif général des Mourides moo ko woote woon uh, doonoon aljuma fukki fan ak juróom-ñaar ci mai le 17 mai 2024 ak aljuma le 24 mai 2024 loolee nag. moom lañ amalaat tey ci euh, al juma gi fii ci dëkk bu sell bi mu nekk liggéey bu am solo boo xamante nii mbooleem taalibe yi xëy nañ jëfee ko ni nga xam ne noonu la ko sëriñ bi euh, bëggee ci euh, zikarullah ci penku jumaa ji ànd kook mbooleem waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall waaye mbooleem point yi nga xamante nii ci biir dëkk bi moo xam buntu kër Serigne Fallou la wéyal nañ fa njàngum xasida gi noonu lañ ko wéyalee ci résidence Khadim Rasoul àndoon ci xalif général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké ni nga xam ne noonu lañ dundalee njàngu xasida gi njàngu alxuraan gi amoon ci biir jumaay Tuubaa ji buntu kër Serigne Saliou noonu lañ ko amee ci biir dëkk bi yëpp fenn fu ci nekk dundal nañ fa li nga xam ne moom moo di njàngum xasida njàngu alxuraanul karim waaye zikarulaa ci ni nga xam ne noonu la ko Serigne bi santaane woon waaye dégg ngeen kaddu yi nga xam ne kaddu soññee la Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké ginnaaw bi 18 jotee mu yëkkati ko soññaan mbokk taalibe yi soññi leen bu baax a baax ci ni nga xam ne noonu lañ gën a mën a saxee di sant suñu borom di sant euh, sant le Serigne Touba suñu borom sant euh, le Serigne Touba ki nga xam ne moom moo di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye sant ko suñu diggante ak moom loolu nekk kàddu yu am solo waaye lii nekk loo xam ne Serigne bi soññee na ci nee na dafa nekk loolu dañoo waroon bés bu yàlla sàkk di ko amal waaye nañ ci bàyyi xel bu baax a baax ndax dañoo war a sax dàkk di sant Serigne bi waaye di jaamu yàlla suñu borom kon santaan leen bu baax a baax gërëm leen ci ànd ngeen àndoon ak ñoom ci àjjumay Touba di la cheikh mouhamadul muntaha mu gën fa yag lool te gëna wër waye ñaanal mboolem talibé yi ñu gëna yag and ak mom bis yi nga xamné mu ngi koy woti te lepp luñ fi ñaan yalla suñu borom nang ko nek xewal yo xamné day bawaan ba ci biir réew mi di sénégal dem ba ci àdduna bi yépp ñu walen di wax euh, wasalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jërëgen jëf ila qaada allahu yawma aljumua maaliya min jamaa ملكني الجامع يوم الجمعة ما لي وحدي اختاره وجمع ملكني الجامع يوم الجمعة ما لي وحدي اختاره وجمع